soxna si ñun bu ñuy ànd ak nit dañuy nawante respectante man loolu laa jàpp man génnuma PDS mais dañ maa dàq PDS dàq bi lenn moo ko waral parce que gor su ne gor la parti gu nekk dafa am ay règlement yu ko tënk dañu toog suñu parti ñu xeex participer à la victoire du président Abdoulaye Wade il nous a récompensé parce que ku si nekk la nga xeex moom lañ la jox mais lépp si kaw ñu liggéey pour l'intérêt exclusif de la nation sénégalaise ci lañ ma fale fal samay morom ñu ànd ak moom. PDS bëriwul bëriwul ku ñu fa dàqate dafoo dara. no non may ma yeggali man je suis un homme assume j'ai toujours assumé mes positions politiques antérieures li weesu ak li am bi mbir mi amee. ñu toog dem ñun jàng nañu lu ñu nilaar nilaar nilaar xam nañu ku ñu daan ne ko munoo nekk candidat waaye nag munuñu gëm nekk ci ab parti ñu nekk fa dem ñun ñu juddoo ci keppaaru président Wade maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla wéral yàlla sàmm ko yokk ay atam bi mbir mi amee ñu toog ne PDS bu Karim demul du ñu am candidat Moi, j'ai participé à tous les combats politiques du Parti démocratique sénégalais et j'en suis fier. Ce qui m'a valu même d'être arrêté et mis en prison deux fois. parce que man foo ma ne dama fa wane fulla wane fa loyauté wane fa njàmbarte moo waral sama duggu kaso bi ñu demee ba ci biir ñu toog waxtaan le président Wade nous avait convoqué chez lui bi ñu toogee c'était une réunion restreinte et j'en partie ñu toog mu ne Karim mooy candidat bu dul Karim du am candidat ñu génn man je ne suis pas une personne qui se valse dans l'hypocrisie parce que man dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi bi mbir mi amee ñun ñëpp ñu toog waxtaan ñu génn ñu réunir parmi ces gens qui étaient à l'intérieur ils ont désigné la personne de ma di Niang loolu moo indi candidature am parce que ku dee ak sa bàmmeel ñu jiital ko man ma bokk ñu wax ñeneen ñu bokk ñu wax ñu dem ba si biir ñoom ñu yollee ko mel ni kon dañu bëggoon dañu bëggoon dañu bëggoon génnee président Madické Niang si parti bi man damay gor te gor su nekk sa kàddu nga am man joxoon naa ko suma kàddu ne ko ale yéwén mënuñu dem Karim ñu ne ko ñu ne bu ñu amulee candidat kenn du doon candidat loolu dafa mel ni ñun ñun tekkiwuñu dara man leen man loolu duma ko nangu et je l'ai dit devant le président euh, Wade l'histoire est là mun nañu feuilleter l'histoire moi je lui dis ma ne ko président vous nous avez élevé lu ñu am tey yaa ñu ko jox waaye ñun dañoo participer ci sa élection mais xel mënut a dégg sa doom ñu condamné ko mënut a bokk ci appellation nga ne ku demul keneen du dem loolu dafa mel ni ñun tekkiwuñu dara